mbokk internet di bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan tey ñëw euh, Wakaam euh, seet si xale boo xam si nii kenn mënutul wax làmb génn ko si ndax yaa bëri amel la ros daan ko yaakaar naa ne loolu rek euh, tey buñ seemoon doy na sëkk muy jaraaf Youssou Ndoye SBT ñu ngi lay nuyu waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sëñ Abdou Karim Mbacke sama sëriñ di sant waa Wakaam yëpp di sant ma ma juddoo di sant waa Xànjar bu baax di sant képp koo xam ne rek da ngay bëggee jaraaf yi sundooy maa lay sant di la gërëm di sant sama grand frère bi nga xam ne moom laa nekk fii nii Wokam muy Maas waaw di sant ñi nga xam ne dañuy jàpp ku ci mel ni Edouard nga xam ne day jàpp ci combat yi ku ci mel ni Baax Yaay ku ci mel ni Sall Ngom Maam Ndaw Aliou Sène maa ngi sant ñëpp waaw di sant Ibou Ndiaye góor gi Ndiaye ñëpp nga xam ne jàpp si combat jaraaf daal maa ngi sant di la nuyu nag bu baax a baax quoi beneen sant way di la nuyu yow di la sant ko quoi yow mi déplacé ñëw fii SBT Média la seen émission seeti mbër wax naa leen SBT xamul mbër mu ndaw xamul mbër mu mag li mu xam rek moo koy takk ngemb te jaraaf Youssou Ndoye dafa bokk ci xale yi nga xam euh, leen jàppalee macha allah làmb bàyyi dañ leen bàyyi a baax ndax champion la ndaanaan la mais euh, tey lu gàtt rek si ginnaaw mooy kan mooy jaraaf Youssou ak turu jaraaf Youssou Ndoye bi la moo ko andi waaw jaraaf Youssou Ndoye dafa def ma nekk koo xam ne dama ko bëgg lool waa yàlla def instant bii ñu toll nii nit ki boo ko bëggee rek ci lu mu ne rek da nga ko ciy jàppale quoi yàlla def ma bëgg ko ma tuddee ko sama boobu kon jàpp naa ne instant bi ñu toll nii daal loolu rek moom ma moo ma gën a poussé ma ma tuddee ko sama boobu quoi mu neex ma loolu fu mu génn rek dafa am nu muy def si man quoi mu tuddee ko sama boobu oui. Jaraafi Sundoy la ma wax boole ak làmb. Jaraafi Sundoy du bëree nekkul ci làmb dama ko bëggal sama boobu rek ma tuddee ko sama boobu gëm naa lu mu nekkee man dama siy nekk quoi. non en personne da ngaa doon bëre bi wala da màgg bëre nga wala. non non non man doonu waaw. dafa nekk loo xam ne dafa nekk lu ma sentir nekk plaisir ci man am nekk benn virus bu dugg si man waaw ma koy gis ñi di ko def maanaam ma ci am plaisir ma dem ba mu yàgg ma xam ne lii nii su ma si nekkee dinaa jël sama wàll ndax gëm-gëm ba mu ngi si man moo jox ko tax ma dugg si làmb nii quoi. ci yi ban mbër yi ancien gloire wala mbër yi démb wala mbër ban mbër moo tax tey nga xool ba ba sentir na daal war ngaa mën a nekk mbër ban mbër moo la inspiré. waaw waaw boo xoolee nag essence boo bëggee dëgg-dëgg. mën naa ne boo xoolee mbër yi li tax ma gën a ambition ma am ambition ci mbër maanaam ay Yékini bu doon bëree xam nga ay ñoom Tyson affaire yooyu noonu xam nga moo joko tax tey ma am ambition dugg ci làmb Yékini waaw moo joko tax dugg mu dugg ci làmb. Yékini grand champion séeréer. waaw moo joko tax man poussé ma ci làmb mu dugg ci làmb. waaye. ndax su ma déggee yow yaa ngi koy Yékini mooy sa maanaam boo xoolee daf man li muy def ci làmb moo ma neex. waaw moom ma neex quoi maanaam moo ma inspiré si làmb dugal ma ci làmb waaw ma dugg si làmb quoi oui. jaraaf Youssou Ndoye mbapat na wala fan ak fan la mbapat. waaw nag. fan ak naa dëkk bi mbapat naa suñu dëkk lu mel ni Ngoy Aliou Sylla googu ma lay wax mbapat naa foofu waaw. waaw mbapat naa wër naa aussi damay takk sama saak dem mbapat drapeau bi ma njëkk jël suñu dëkk daanaka boo xoolee surprise la def ñëpp. bi ma ko jëlee benn instant dafa am ñoo xam yu bëri ñoo xam ne sax dana ne da leen di surprise ci laa xam ne na man dama am ci làmb ji wàll dama ci am cër quoi beneen sang waaw. actuellement ban écurie nga nekk. maa ngi olympique de Ngor. olympique de maa leen di nuyu ku ci mel ni père Ibou Diop ku ci mel ni préfet su préfet écurie écurie moo écurie préfet Ngor moo ko yor écurie moo ko gérer quoi waaw ku ci mel ni mbër ya fa nekk yëpp nag su ma limee mooy juum waaw ñoom ñëpp maa leen di bëggee quoi waaw maa ñëpp maa leen di cat ba cat booy bool maa ngi koy bëggee quoi écurie bi moo tax ma ñëw fu moo ma fa yóbbu maa ngi koy bëggee bu wër waaw noonu la demee. tey si ñoo xam ne laale ngeen mbapat nga daan leen wala ñu daan la ñoo xam ne làmb xam ne leen ko si mel ne kanakat waaw loolu daanaka boo xoolee bëri na mais doo lim tur xam nga loolu lu ma. ñett ñoo xam ne ñoo xam ne champion nga ci mbapat. maanaam tey jii yooyu noonu xam nga xam nga nit maanaam man lu lu ma lu ma paase rek lu jàll rek loolu noonu fàtte naa ko maa ngi li ne sama kanam quoi. Ah, SBT Média la seen émission seetu mbër yow gis nga émission bi ni muy demee cest à lu mu mën a doon dañ koy bëgg waxtaane ko mu leer ndax wax naa ne SBT li nëbbu lépp lay leeree champion bu mel ni yow tey SBT ñëw wan war la fas laa génn wane la àdduna ñi la xamul woon xam la donc tey dañu bëgg xamit li nga def si mbapat ñu xam ne lii yaa ko def ci mbapat waaw dama ne mbapat dama ci jël kan kan nga daan ñett wax ci ñett ñoo xam ne yaa leen daan ci mbapat laa ma xam leen xam nga tey ji dama ne la maanaam ñooñu ma lay wax noonu tey ku ci mel ni ñagas daan naa ko ñagas bi ne écrit Kër Massar daan naa mbapat euh, metti xam nga ko metti bu ba la daan naa waaw ñooñu ñooñu laa daan ba non ñooñu mais mais ak da ngay fàtte. non maanaam da ngay fàtte tey jii da ngay fàtte ñëpp doo leen mën dilim dilim xam nga day fàtte. jërëjëf ma ñett laa laaj ñoo xam ne daan nga leen làmb xam leen. ñooñu laa daan mais ñeneen ñi des làmb bi day ne sama li ne dama ko dama ciy concentré ba maanaam yooyu dama leen di fàtte quoi. combat nommé mbapat ñaata combat nommé nga def. waaw bëri na nag. bëri na def naa ay ay combat ay ay six cent sept affaires yooyu noonu yoo xam ne def naa ko ay combat nommé bëri na moom li ma def moom bëri na. six combats noonu yi nga def ñaari combat nga man daanaka boo xoolee gagné naa si cinq ben laa ñàkk. daan. Euh, fëgal bu jar ma koy wax waa quoi yooyu. fëgal bu ngor moo daan. waaw moo ma si mbapat quoi. fëgal bu ngor benn. waaw koy nu sax sama xarit la. instant yii maa ngi sax léegi maa ngi ci kiri boobu. ma ko jëlee mu ne ma booy booy di balbal bal bal fi yëpp yëpp defal naa maanaam sama gaañ la sax sama xarit la maa ngi si kii boobu fi mu toll. man la woon temps booy loon mais moom xam nga saa dama ko jëli mu ne ma man champion laa man mënu maa nangu saa mu ne ma booy yi ngay gis fii ñuy ngan ngan lu yëpp kenn ku nekk am na fu ma jaar yomb. waaw dama jekk ba xam ne boole na la loolu maa dëggal maa boole na ma si lim bi maanaam boo xoolee loolu xam nga ni mu rek. lamb moom mbapat moo demee noonu simple nekk na loo xam ne aussi ko nuyu bu baax sama waay. daanaan la daan waaw am problème man daanaan laa quoi. lu ko ko a koy mujjee. am problème loolu am problème waaw noonu la demee. ok léegi ñu génn bi ñëw si li nga xam si moom mbàccum gerte mi SBT Média la seen émission seeti mbër abonné leen ngeen bës seen touche cloche notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen mën si ànd ñëw di maa sama tooma ah, borom borom wakaam comme mooy sa ki ah mooy sa gannaaw maa ngi koy jaajëfal baax a baax ndax moom sama turandoo la léegi sa premier combat arène yow ak kan la. waaw sama premier waaw moom laa bëreel quoi. xam nga ko. non bi ma koy jël maanaam lu ma dégg rek ñu riir mi day bëre ay mbapat day jël ay mbapat day daan day def nii day def naa xam nga lu ma nii maanaam ma dégg loolu ñu ngi di day bëre day def lii day def la maanaam ma jël ko dégg ko en plus ma ne il boo bala ngaa nekk ndaanaan da ngay daan ay ndaanaan c'est son premier combat arène la il faut ma ñàkkante ci laa bëreeg moom yàlla suñu boom may ma si ndam man ci samay pare ko ku ci mel ni góor gi Njaay war a soog ma xam ne bu ma amee combat day day jóge temax bi war a soog a ñëw lu lu ko combat bi jarul amul waaw day ciy ñëw di jàpp ak am Amdi Moustapha sama grand bi gars yëpp dañuy sacrifice jël seen lépp def ko ci làmb waaw ñooñu ñoo jàpp si ànd ak sama mbook jóge waa Bambey waa Xànjar ñoo jàpp si combat ma ñëw yàlla suñu defal ma ndam. léegi combat bi laa bëgg ñëw bi arbitre sifflé noo bëree ak moom. waaw bu arbitre sifflé dama ñëw xam ne te comme damay soog a ñëw moom xamee ma nan la ma ne damay ñëw jël sama temps taxaw déglu ko su ma ko dégloo su lu mu indi rek man maanaam man ma xool lan la indi waaw ma corriger ko ndax booy yëpp dama leen di corriger man corriger booy laa tollee saa yi toll nii corriger rek <laughs> damay corriger rek no si booy ku fi tën nan ma ko jox ma defaral ko man. sa premier adversaire noo bëree ak moom combat bi nu combat bi jeexee laa bëgg xam. waaw ma dóor ko gauche droite nu xeex xeex bu metti man ak moom laale na nu xeex xeex bu metti. dóor ma dóor rek ngeen xeex nag. dóor ma dóor ñu xeex ma juylantoog ma juylantoog moom jël tànk bi def relation mu foog na may fàq tànk bi dëj ko ma daw wër ko ndombo def relation fekk si ko jàpp bés ku mu toog jël bu yom laa ko daane loxo bi laa ko daane rek. muy sa premier combat première victoire nga jógee fa ñu jox la kan. waaw ma jógee fa ñu jox ma njaaxum deuxième combat ma yaakaar na man moom instant bi mu nii waaw xam nga rek la am feenee da ngay ñëw rek turi fa fii mu gën a gaaw rang muy gaaw yaa ma gën a xam ma ñëw fekk xam nga rek yëfu xale. sa diggante njaaxum waaw boo ñu taxaw nga jël njaaxum xam nga ko. njaaxum bi ma koy jël daanaka damay dégg ndax man booy bu siiw laay bañ a dégg booy boo xam ne da ne day dem nan ma ko jox ma arrêté ko man yooyu néew ma si ma jël ko ma dégg ñu naan coow li nii nii nii nii ma ma jël ko ñu wax ji bëri lool ma jël ko. bi nga ko jëlee sa gars yi ñëpp neewoon na la bàyyi fi njaaxum nga dëgër boob non njaaxum sax maanaam bàyyi ko fi fii amul mbër mu ma fiy bàyyi jaraaf du baay benn mbër fii wookaam fii nii mbër fépp mbër bu ma jox jaraaf bi nekk wookaam amul ku muy bàyyi kun ma jox ma defaral ko kun ma jox dama ko defaral booy fi maa gën a ñeem lu metti dañuy toog nag di wax rek boo leen dëkkee si site yi dañuy wax maa ngi dégg Amel Lagros moom waaw mais maanaam dama ñëw bëre ak moom ñàkk xam ne lii nii tey. nan ngeen bëree bi arbitre sifflé nga commenté ñu combat. man maa bëre maa def lépp maa pousse maa passe. lépp lu ne sa lam ja maa ko def ba pare daanu. waaw mooy lan noo daanoo nu mu la dalaa bëmax wala dalaa nooj wala dalaa xaatar wala dalaa. non bëmaxuma sax noojuwuma dama ñëw maanaam def contre kale. dama ñëw def kale dama def kale mu contre ma. waaw looloo ma daanee ma xam ne tey jii du bësu ndam bësu ñàkk la rek ma ñàkk looloo ma ñàkk loo combat bi waaw. donc sa diggante ak njaaxum bi nga ci jógee am gars yi bëri ne voilà mi ngi nii booy bi dafa bëri wax ah, dafa yàkkamti ah, dafa waroon a xaar ba kanam xam nga boo daanoon rek gars yi ñëpp ay coach la ñu doon ah, booy bi ñurut bëri bi ñurut sa diggante ak nga dégg ci lu nekk ginnaaw bi nga jógee si njaaxum après jox la kan. waaw ma jógee ci njaaxum ñu jox ma Amel Larosse waaw. bi ma xam nga ko. waaw Amel Larosse ma koy jël maanaam daje na coow li bëri lool muy wax rek <laughs> man instant yi xam nga yooyu taxumaa jóg quoi ma ma jël ko maanaam won ko ne man def naa trois combats arène moom moom muy nekk premier combat am xam nga si yoon tay ma corrigé ko. ah sa diggante Amel mooy troisième combat. waaw waaw sama diggante Amel Lawros mooy troisième combat bi waaw mooy troisième combat waaw moom mu am moom mu am euh, premier combat am moom. waaw kon si yoon tey ma ma ma ko. waaw ku la nekk ci néeg bu lëndëm moo la wax fi ngay toog waaw man ma xam ko ne tey maa la njëkk ci laam il faut mu corrigé la. sa nga ñëw arbitre siffle. arbitre siffle mu ne dafa indi xeex moom mu ne dafa indi xeex ñu jaamaarloo ma moom. ñu jàmmaarloo bi ñu jàmmaarloo ma corrigé ko corrigé bu sax corrigé bu gaaw ne ko fa di yàgg moom li muy def gars yi di leen tante di leen zongale noonu laa ko daanee moom zongale boobu moom boo tegaatee combat yi maa ngay dégg ci biir wax bi mu naan jaraaf yi su ndóori dama ko daan dem seen kër mu mel ni maanaam man maa daan day reefe moom day reefe jara gis ni nit bu la daanee non Lagros ah, daan naa ko pare su may waxaat ci moom day mel ni day niru leneen te Amel Lagros teguma ko bët man ma teg sama bët du Amel Amel Lagros teguma ko bët maanaam danoo bëre ma won ko man maa maa maa la njëkk ci néeg bu lëndëm maa la woon fi ngay toog ma kurisi ko daan ko kon maanaam maa ngi dégg mu naan damaa damaa dama damaa dóor yóbbu ma ardo teppi teppi ma man trois combats laa def amul benn bër bu ma mos a yóbbu ardo trois combats yëpp moom danoo ñëw ma kurise ko maintenant maa ngi dégg mu naan ay essence bi ñu toll nii dama ko dama dama teppi loolu dafa jàll sax loolu garaawul gàccey dóor gàccey daan faj na ko dégg nga ma ah duma la nag nangu rek nangu la nangu ko tontu sax du ma si débat fii man champion la boo yi koy man man daan naa ko rom naa ko fàtte wax moo toog ci bés bi daan mais bi koy daan ak Amel Lagros bi bokkut de waaw d'accord daan naa ko man jéggi naa ko maa ngi feneen grand frère am laa soxla man du maa moom bu loolu weesoo Amel Lagros bu nit bu la daanee nga nu dëkk le micro waxal si moom la nga xam ne moo naa ndax daan naa ko champion laay doon ba faw te jël bi ma ko daan fii ba 10 combat bu ñëwaatee ma tegal ko pied gauche teg ko ci wet gi di ko daw ak moom ba Pikine du ma daan man daanaan laa dama mën a bëree barki Ahmadou Bamba. da ngay wax xam non d' accord d' wax Amel xam nga dama ko dama koy tontu dama ne ko maanaam Amel Rose dama ne ko sa champion laa ne te champion laa ne ba faw sa champion yow la Rose du maa yow. kurise naa la ma naa la maa la mën daan naa la ci ay ay ay seconde yaagul kon jeex na nan jàll feneen waaw. nga ne nga ne Ameth Ladoum taxul laa jóg ay grand frère am ku si mel kan. bëri na ay grand frère koo ci tudd day day commencé kenn bu ci tuñ affaire yooyu noonu. booy yi bàccam ge booy yi dañoo saf saapa de xoolal dama ne la jaraaf bul toog sa gars yi wëral mafia nga nekk fii di am looy teg nii booy yi ay mbàccam gerte booy yi nu ne bàccam bàccam gerte gerte gerte fekk fi kak man sa waay booy maa ngi gën a nekk kak fuuf ku ma ci jot dama lay bëreloo ba nga koos daan la jël bu rëy ku fi ne di siiw nan ma ko jox ma tourné ko léegi maa ngi wookaam fii waaw. li nga jógee si am mel coow li bëri jaraaf yi su ndooy jaraaf yi euh, ñu gis ne am na combat yu ñu doon wax mais dafa mel ni jaraaf yow lu nooy rek ngay wër quoi. jaraaf xam ne non ku ko ku xam ne lu nooy. mu doon ne ngi koy nuyu jaraaf yi su ah, di ko jaajëfal bu a baax macha allah moom gis nga moom bëggul dara lu nooy mais yow jaraaf yow sa turandoo su ndooy lépp lu ne si moom la li ne si man mu ëpp maanaam moom lu ne si moom lu ne si man moom. français nga booy da ngay ma booy maanaam maas booy yi nii dama la bëgg a xamal ne la booy yi nii. yàlla seede coow li muy bëri bëri bëri doo dégg mbër mën a jox ma jaraaf. amee la roos laa daan de du passé naa ko tegu ma ko bët mais dama ne la doo dégg booy bu toog mu nga dégg ko micro jox ma jaraaf. ne ko réel 2 na jox ma jox jaraaf ma ko jaraaf mu ne ma jaraaf bu ñëwee ma bu ñëwee ma dindi jaraaf gi si moom. kan mooy nekk réel kooku xaw ma ko kooku siiwut. kan combat la def. non siiwut siiwut man nga def 10 combat doo siiw kooku siiwut kooku xaw ma ko xaw ma kooku wax ma keneen moo gën man yaa ma ko maa ngi dugg dégg loolu. d'accord mais xam nga xam nga man tey euh, parce que dégg naa jël nga jël nga booy bi dëkk Pikine ah parce am na booy yu wax lan moo tax juróom booy yooyu noonu. c'est que xam nga mooy yoo xam ne instant yi toll nii ci lam dara te boo dëkkee micro ñuy wax. kan maanaam dama bëgg xamal na la. parce que man déggoon naa fi sa combat ak Liss Ndiago ñu ngi ko doon dox ci combat bi dégg naa yaa daw combat bi. non fii ñuy gënaat te waxuma ne grand bi récupéré ko maas ñu jël ko quoi ma defaral kooku noonu. parce que parce que parce que bi ne sa combat li tax taxawu dégg naa danga ne ki ko daan maa ko daan moo tax combat bi taxawul pourquoi. non non man du ma xoolee foofu xam nga fan laay xoolee sama palmarès ma boole ci boo yoo xam ne dama am talent man daanaan laa bëgg di bëreel. mais Liss Ndiago daanaan la benn takkusaan ñaari jël la ñetti jël lay daan. loolu loolu ñoom koy daan la rek. c'est que nee naa la booy nan bàyyi affaire de man kàkk laa booy nan Ndiago sa combat ak Liss la moo tax nga daw ko. dama la jàmbaar. Liss Ndiago mosu ma proposé combat am nan waxante dëgg rek yàlla xam ne mosu ma wax combat am man sama combat ak euh, Fram nan dox mu taxaw pour mu bëree ñoom mais booy torootuma fu may wër booy booy ñoo may wër damaa bëgg a bëree jaraaf damaa a bëree jaraaf. nan taxaw ku ci fi dara nag fi dara bëgg fi yow yow yow améliorer benn fi daal ak doomu ginnaaw raay Ndiago ñoom mën nañoo bëri dix combat mais jaraaf moo fi nekk. dama la lu mel ni mu nii booy maanaam damaa bëgg ñu xam ne man dama ne ku ci tëb ba jël ma booy yi ma seen nee du ma jàpp ci tur ñu ne fii di di bucc tuñ di leen may bës man may compalaate bës bës maa koy compalaate booy ku ma ku ma ci jël ma defaral loolu cur barki alxuraan lu leer laa léegi yaa ngi yaa ngi yaa ngi si guddi gu sa dëggul sa digganteeg sa digganteeg faram bu bu école euh, booy ñaa euh, pourquoi nga jël ko. waaw faram dafa dama dama dama dama nekk dama bëree génn ci combat amee lagros xam na xale laa te làmba ma war bëree ma war bëre laa am tey jii mu génn ma jël ko looloo tax ma jël ko tey du leneen maanaam dama xam ne tey ji en même temps tey boo bëriwut rek temps bi du la fi xaar te boo xoolee maanaam làmb nañ am ñun ma ne xaaral ma jël ko fexe tourné ko seetiwaat leneen. parce jàpp ne faram lu nooy la te lu nooy ngay wër nga jàpp ne moo tax parce que combat yi wax daw ko mais faram ñeex du ñeexum ñebe de. lu nooy laay bañ a dégg man boo nee nga xam moom du xam ñebe day xeex day bëre. non maanaam dama ne la man mii di wax ak yow mii lépp laay tej lépp laay def. sa diggante faram ñeme ngaa taxaw samp jaaga xeex ak moom. saa yi xanaa déggoo la ne su arbitre soufflé lay xew faram lay xew sa géew ba maa koy def jaraaf Youssou Ndoye ngay waxal faram jaraaf Youssou Ndoye moo wax ak yow is back is back bu arbitre lay xew sa géew ba maa koy def maay pousse maay passe. waay déggoo li ma la wax nii waaye booy booy xam na booy xam ci dégg ku dëkk micro mën a jox ma jaraaf cool yi daa bëri de dañuy coore diggante ay yenn koñ yi nii rek mais kenn ku ne xam nga la booy maa leen mën fuuf man damay lii naa ne euh, faram bu dee xeex mool dàq xeex bu dee bëri mool dàq bëri kon jaraaf loo am ci combat bi waaw li ci am nan bàyyi ba at bi suufle di ñaan yàlla mbas mi yàlla na ko si yàlla génne quoi feebar bi yàlla na ko yàlla suñu borom génne fii quoi ñu nekkaat suñu activité nekk si ci yàgg quoi et puis di wax échange yow ñu ngi lay félicité bu baax ñoo déplacement bi ngay déplacement di ñëw di seet si mbër yi. ñoo ko ñoo ko bokk ñu SBT moom seen yëf la jëru ngeen leen sant ngeen sant leen ngeen gërëm seen yëf la loolu doxal doxal ci gars yi la. noonu la demee di sant nag waaw góor gi Ndiaye borom bi maa ngi koy sant bu baax Edouard di sant waa waa extérieur ay ay xarit Aïda Aïda maa lay sant bu baax Aïda defal dara Aïda États-Unis maa lay sant Aïda jàpp jàppal si waaw waaw waaw. waaw xam na nag nam naa la trop barki yàlla. waa nam nga loxo. non <laughs> waaw grave am problème et puis maa ngi na sant Ibou Ndiaye ama fayam Ibou Ndiaye baaxee. émission bi jeexagul sa diggante ak faram nangu goo cee wax te faram fi ne nii moom dafa samp jaaga parce que nee na arbitre bu bu bu sifflé fas yéenewul tànk dajooram bii fekk ginnaaw. waaw xam nga tey ji micro de. nañu wax si combat ba pare après di nga sant di nga gërëm SBT la. waaw xam nga maanaam tey ji di wax ak yow gars yi koo ci dëkk micro maas gars yi koo ci dëkk micro day wax rek. te nee naa jaraaf neexalul kenn ku ci mel ni jaraaf Youssou Ndoye di ma jàppale di sant soxnaam bu baax ay famem ñëpp di ko sant jaraaf boy faram di ma ko wax dafa dafa dafa dafa deru sax may dama koo mën. loo koy yóbbante maanaam nanu fi yàlla wëcc ba suur ba ba at bi suuflee dinaa ko duma dinaa ko daan maa la wax loolu tey man maa xeex maa bëre maay daan loolu laa ko wax. ñaari minutes lamb bi mën ngaa indi nii tey day gaaw moom mu ñëw indi taj taaj da jëmale suba bëgg a naaf fii te ñëw ma di naaf xam nga samay supporter xamee ñu ma loolu dama leen wax ma komba combat nan sañse lu rafet toog ci kaw ma yëngal ba mu normal daan ñib siwaat woogaam lii dafa neex yaa ko wax nag du samay wax nag waxi jaraaf yi non dafa naag faram ngay waxal de. waay dem waay faram fan waay man man gars kooku li ne sama bët yow dafa kii nga bokk ci làmb mënuñoo ñëw fii am ay combat yu mag yu taxaw te te te ñu jukki ci benn combat nga nga nga tojal ñu ko muy diggante Ama Baldé ak Modou noo jàngatee combat boobu. waaw combat boobu dina neex trop dina neex trop trop ndax maanaam tey jii di wax yow da di làmb te boo xoolee amateurs yi dañ koo yàgg bëgg kon xam naa ne làmb te dina saf làmb bu baax a baax waaw. Euh, tey euh, am ñoo xam ni dañuy wax ne euh, Ama Baldé Modou Lo moo dàq xeex moo dàq bëre yow en tant que xale nga siifut ñaari mbër yëpp est ce que d'accord nga ci loolu. waaw man dama jàpp na lamb moom euh, kenn ku ne da nga indi sa monin rek te jàpp naa ki la sa monin kooku moolo la sens foofu kon jàpp naa ne ñoom ñaar képp ku nekk ku njëkk a indi sa monin rek gëm naa ne mën ngaa mën nga am dara. ñoom ñaar kenn ku nekk la mooy moninam. waaw bëri na c'est que Ama Baldé day attaque Ama Baldé day ñëw attaque Modou Lo maanaam day ñëw taxaw lu combat bi gën a yàgg gën koo arrangé waaw day bëre di calcul. te Ama Baldé bëreetam bëreetam dafa dafa nekk loo xam ne bu pour nga mucc dafa xaw a garaaw quoi loolu nag bu ko Modou Lo rek mën naa am dara waaye ñoom ñaar daal kii meilleur gagne quoi ku daan daal yàlla na yàlla defal jàmm quoi ndax ndam de Sénégal la quoi beneen saa ku daan fii lay yem quoi waaw. su ma la mooy boo doon boo doon digal Ama rek naan ko na dem na dem xam nga làmb moom kenn du ko jàngal kenn mën naa la làmb yow yaa indi li nga indi yow mbër mi tey bonoo ñëw tey te mun la conseillé sax li ne si yow rek nga indi boobaa suur boobaa loolu lay bëree ñun du ñuy wax rek mais maanaam daal kenn ku ne daal yaa xam li ngay ni quoi beneen sax. ñoom ñaar ko ci xeex. waaw combat bi nag gëm naa ne dina dina gaaw quoi. seen ko ci xeex ñoom dina xeex il faut ñu laale quoi ndax ay góor bu nu bu nu bu nu dajee jëflante la quoi ñaari góor bu nu leen boolee jëflante la quoi xeex dina am wa waaw dina xeex il faut xeex am. bu ñu xeexee seen ko ci dóor mu daanu. non combat bi beneen sax nag loolu moom kii dese na maa wóor daal mais maanaam li ma mën a xamal mooy que combat bi dina gaaw quoi ndax il faut moo am xeex door mu daanu nag surprise la rek waaw loolu laa ko jàpp mu daanu surprise la rek. moom ñaar kan mooy favori. non jàpp ma ci favori nag man du ma ne kii mooy favori si comme ñoom ñaar waaw man am ma favori foofu noonu waaw li ma la wax léegi ku ci njëkk a indi sa mënin rek mën ngaa gagné combat bi waaw. noon seen émission seeti mbër dégg ngeen jaraaf li mu wax ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo muy tàkkusaan goo xam si ni Luc Nicolaï Enco moo fa jaar la promoteur du continent ah buñ ko tuddee rek suñu xel dem ci suñu papa raay moom mi nga xam ne moom moo koy doxal ay activité am di ko jaajëfal baax a baax a baax mais mais mënuñoo wax ñëw te waxuñ ci beneen combat diggante Boy Niang ak Tapha Tine waaw Boy Niang Tapha Tine combat la combat neex aussi <laughs> waaw combat yee neex waay yàlla na si yàlla suñu boobu génne lii rek ñu mën a nekkaat suñu affaire quoi. combat daa war a jeex. daa walaay du a nam daa war a jeex. laa man damay toog ba mu yàgg xoolal may coowaay sama yaram day tàng quoi. bu du woon a corona bi bu nekk seet leen ma wàccoog moom fi mu toll nii booy di ne fii di a freiné saa di wax ak yow nekk na combat boo xam ne dafa nekk combat bu amateur yi soxla trop comme dab ndax amateur yi li ñu soxla rek a taxawee saa yi toll nii li ñu soxla rek waaw ku nekk koo xam ne am nga actif rek mën na yàlla mën na la dimbali quoi ci loolu noonu waaw mu gaaw ñoom ñaar. waaw combat am nañ bëree quoi ñoom ñaar. mu gaaw non du gaaw dinañ bëree. non dinañ bëree ñoom ñaar dinañ bëree ndax boo ñaar day day calculer quoi moom lu muy def da koy calculer waaw day def tak calculer quoi lu muy def rek moom looloo tax quoi te tafaatin aussi day xam ne kii nii waaw xam nga nu mu demee quoi. tafaatin du gën a piquant ama daan ko te du bëgg boo ñaar daan. loolu la fa demee nag looloo tax ma ne du nekk combat buy gaaw. day seen ko ci xeex. waaw ko day am xeex. ko day xeex xeex day am. xeexee ci kaw ñoom ñaar kan la arrange. waaw Tapha Tine dafa mën a xeex Tapha Tine dafa mën a xeex trop. mais Boy Niang aussi xeexkat la te Boy Niang day calculer waaw Boy Niang dafa nekk ni mbër moo xam ne day calculer. amateur yi ne Tapha Tine dóoram fi mu gën a bonee mooy mu kor la dóor la mais ci kaw bu nga léwatoo foofu Boy Niang moo ëpp avantage ci dóor yi. waaw amateur yi ñooy gis loolu ndax amateur yi ñoom ñooy topp mbëri loolu dëgg la ñoom bu ñu ko waxee tey jii ñoom amateur yi ñoom ñoo xool mais dama jàpp ne combat boobu day am xeex day am xeex bu baax a baax a baax gëm naa ne nag xeex bu ko amee moom kenn ku ne rek na ngeen li ma la wax léeg-léeg lambu da ngay nekk nit koo xam ne yàlla moo lay wax tey lii am ci lambu surprise bi waaw xeex bi mën na jàpp booy ñaa xam dafa mën a xeex Tapha Tine dafa mën a kon jàpp naa surprise la rek bunt boo amee rek mën na feeñ quoi waaw ku ci am buntu dóor rek mën nga mën nga mën nga feeñ nga foofu waaw SBT Média la seen émission seetu mbër li ñu mayoon ci waxtu nag xaabaabal na mais ki ñu invité mooy toll mooy xale bokk ci làmb di wax na ngeen bàyyi ko xel jaraaf Youssou Ndoye ah nekk école de lutte euh, Ah, nekk champion bokk ci làmb def 3 combats 2 victoires benn défaite jëm ci combat am bu am solo diggante am ak ki nga xam mooy faram bu école de lutte euh, Boy Niang ñu bàyyi la nga sant gërëm ñi lay ñëpp. waaw bu loolu weesoo maay sant waa Xanjar bu baax fi ma juddoo nga xam ne boo amee combat ñoom ñëpp duñ tëdd du nelaw maire yeeg mag ñeeg xale yeeg ñëpp a ciy jàpp ñëw si combat di la jàppale Xanjar ñëpp dan maa nekk joo xam ne cër bu bu mag nan ma jox waaw beneen sens sama combat seen bés lay nekk événement la ci ñoom di sant waa Ngoy Aliou si waaw di sant waa Bambey waaw di sant waa Boof waa Boof maa leen sant bu baax nga xam ne tey jii nii ginnaaw si yàlla tey jii nii ñoom ñoo may def mbër quoi waa Boof aw ma seen fay waaw sant waa Jaxaaw waa Jaxaaw Sine waa Bikol di leen sant bu baax bu loolu weesoo maa ngi sant sëñ Abdou Karim Mbacke sama sëriñ di sant soxnaam yaa awa yaa Ami Mbacke maa ngi koy sant bu baax sant waa Paquetas di sant waa waa ñu yaay bu weesoo maa sant Amdi sant Maas sant waaw booy yi nga xam ne booy booy maasi waaw yu mel ñoom Lamine waaw gars yooyu noonu ñoom Malick Milki di sant ñoom booy seen Serigne sama booy bi maa ngi koy sant bu baax moo ma desal ci place bi ne di sant waa marché Wakaam bu baax a baax a baax marché Wakaam gépp baax yaay waaw di sant Abdou Assis Al Amin maa ngi koy sant bu baax nga xam ne kooku day jàppale jaraaf fu mu toll mu ngi koy jàppale di sant Gorgui Ndiaye borom teemax bi war a soogi Ibou Ndiaye maa ngi koy sant waaw bu baax di sant Aïda maa ngi lay sant bu baax premier États-Unis maa lay sant bu baax a baax di sant Yoro Ama Faye moom day jàpp si combat bi Sal Ngom Aliou seen samay nijaay maam Ndaw maa ngi koy sant bu baax a baax maa ngi sant képp koo xam ne day jàppale jaraaf jaraaf yi sundooy maa ngi koy sant bu baax marché Wakaam nag maa leen sant di sant fukki penc ak ñaar maa leen sant sant fukki penc ñaar yëpp maa leen sant di sant maas jarbaatu jaraaf yi sundooy maas maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant kulu séeréer maa ngi lay sant kulu rek maa lay sant di sant kër Ndiouga sama yaay fi mu jógee di sant sama papa bu baax sama yaay maa ngi sant bu baax a baax a baax bu loolu weeso mas maa sant ki nga xam ne kenn la ci man chaque jour dama ko wax góor gi Ndiaye aw ma fayam maa ngi koy sant day son samay combat lu la lay daaj samay combat da ci son bu baax damay damay dem ba mu yàgg Edouard moo ma njëkk a defaral tiset na ma jàppal li mbapat dafa génn sax xam naa ne ko fi mais ku sant man la Modou Ndaw ama fayam maa moom dañuy ànd depuis xale di sant soxnaam di sant soxnaam bu baax Modou Ndaw maa ngi koy sant di sant soxnaam soxnaam euh, mari maa ngi koy sant bu baax di sant kenn ci man maa ngi koy sant bu baax a baax ma fayam euh, kii nu mu tudd waaye damay fàtte tur bi nga xam ne sama damaa sañsal yére ma sañsal yére na ma lii nii jaraaf yaa ko moom laay maa ngi koy sant bu baa Zal Zal aw ma fayam gis nga xel day fàtte mais xel maa ngi soog a ñëw Zal aw ma sa fay damaa ñëw war a def émission nga jën yére yu bees teg dal ci kaw bu ci suuf na ma solol émission bi nag xam naa fekk la fi fi mu toll nii yaa ngi yaa ngi États-Unis damaa may xarit rek États-Unis instant bi mu toll nii émission bi sa émission la. di di sant waaw moom laa may émission bi ndax dama jëndal yére solal ma ay yére na ma solal Zal di sant mbokk mu am ci àdduna rek maa ngi sant ñëpp maa ngi sant yow nag maa lay sant bu baax aw ma sa fay ndax lii nii dafa nekk loo xam ne dafa rafet trop maas maa ngi koy fay grand bi Abdou Sarr maa ngi ko fay sama grand Omar Sarr maa ngi sant képp koo xam ne day jàppale jaraaf maa ngi koy sant bu baax xanjar aw ma seen fay falaa judoo falaa yaroo maa leen sant fukki penc ak ñaari aw ma seen fay wakaam fukki penc ak ñaari maa sant di gërëm jaraaf yi maa lay sant jaraaf yi su maa lay sant bu baax jaraaf jaraaf aw fay jaraaf maa lay sant bu baax taaxale ko dootoo nekk jaraaf. non faram dama ko bëgg wax ne ko su ñëwee faram kak ngay waxal kak jaraaf yi kak boo ñëwee maay puus maay paas dinaa la daan dinaa la defaral bu cur yow booyoo boo xam ne lekk nga avance boo xam ne yow xam nga ne doo nelaw sax avance su jaraaf yi si nga lekk yow xam nga ne yow nekkoo kuy nelaw maas kontaan naa ci waaye. noonu SBT Média la seen émission seeti mbër ñu dalaloon ki nga xam se ni moom moo di jaraaf Youssou Ndoye bokk ci làmb ngeen bàyyi ko xel ma faram nag wax naa ne làmb ñoom ñaari xale ay ndaan lañ ci wàllu alaaji alaaji fayam alaaji alaaji sa fay dama doon bëgg a jib aw sa fay samay booy ngeen alaaji jib samay booy ngeen tubaawa kaam samay gaan ngeen voilà